وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم alhamdulilahi rabbil alamin li am moom sénégalais yëpp gis nañ ko àdduna bi yëpp gis nañ ko mooy maltraitance rek ak torture bi nga xam ne moom la borom doole yi taamal def ñi néew di doole te loolu dafa mel ni Sénégal ñu ngi koy bëgg miin te jaaduwul euh, li amoon démb nag mbiru daara la te daara dafa am ay particularité boppam daara yalwaan ci la bokk daara yalwaan ci la bokk daara ñii yalwaan ak daara ñi nga xam ne yalwaanuñu Sénégal yëpp sedd nañ ne ñi yalwaan ñoo gën a ëpp rigueur ñoo gën a gëm culture bi nga xam ne moom lañu daara yore euh, bu ko defee ñu fekk ñu ci daara ji xale yi di yalwaane am ñu génnoon dem di uti ndékki euh, ñu toog ba si yàgg ñu ne ma jàpp nañ ay xale ah ma ne jàpp nañ ay xale waa ma jóg ñu woo ma sëñ daara bi nga xam ne moom lañ jàpp ay xale moo ma dem fekk ko mi arrangé ak diggante ak ñi nga xam ne ñoo jàpp xale yi ma ànd xale yu mag yi na leen nañ leen dem bu ñu yeggee ma fekk ñu taxaw ñoom ñëpp seen biche dugal ci ay euh, oto biche yi ñu def ci ay taalibe yi ba mu bëri parce que li ñu wax mooy ñoom ñi ngi jugee côté euh, Médina bi jaar Colobane jaar Grand Yoff door a yegg si fii ci côté cosaan lañ jàppee xale yi ci pour bi foofu bi ma ñëwee xool ci biir bi ma gis benn waay bu ñu wax Latouf dégg naa jox ma ay information yu mu jàllale benn organe de presse lam fa jàll dara wéeru ci nee dañoo toj kaar bi xale yi amuñ sax xeer jógu fa nee na dañoo rajaxe kaar beeg yooyu dara wéeru ci li may wax sénégalais yi organe de presse boobu nañu xool li ñuy jàll te ñoom nañuy wax dëgg bu dee quatre quinze milliards yi moo fëq seen bët ñun dërëm dërëm yi ñu am sax fëqut suñu bët bu ñu amutoon dara dañuy dund parce que lu leen yàq gi jaral rek defar gi jaral nañu ko. bu ko defee mu ñëw nag ci li nga xam ne moo xew dëgg-dëgg mooy bi ma ànd ak xale yi ñëw fekk sëñ daara bi taxaw ñu téye yéreem ñuy wax ak ñoom ma ànd ak benn xale ne bàyyi leen xale yi ñu ban raison lañ leen bàyyi man ñi ay taalibe lañ fii lañ jugee ci daara jaa ngi nii fii lañ ngeen leen jàppe bàyyi leen ñu wàcc ñu ne ma duñu wàcc xale bi na de xale yi di ngeen leen bàyyi ci nii wala ci nele police bi poñe booy bi booy bi na bàyyi ma xamul xamul parce que moom dafa sol ay yére comme mi mayen la sol simple civil la doon mu poñe booy bi booy ko bàyyi ma mu bañ ko bàyyi commencé di dóor bi door yu métti bi ma gëstoo gis dóor yu métti ma dugg seen diggante ak booy bi mu dóor ma man ma attaqué lañ ñoom xeex ñu ñoom ñëpp ñu sonn ci lañ ma door nii seen piquet yi dool ay liif ay monote seen ba ma charge yi ñor bëgguma mën a sax foofu ci seen place mais nag yàlla dogal ma jéem a def ay pexe ba yàlla dimbale ma ma rëcc bi ma rëccee ñëw dugg ci néeg bi bëggoon nañu fekkaat pour jël si ma waaye alhamdulilahi rabbil alamin seen pexe yàlla sottalu ko ba ci laa dem waaye dafa ñaaw dafa ñaaw sëñ daara bi nga xam ne moom lañ jàpp ay xale mi ngi nii toog mooy sëñ daam mi. yàlla dogal ñu yor fi ay ndongo ni ko oustaz Taha waxee daara yi mu doon luñ doon ci suñu jur doon lu ñu gëm lool am suñu benn magu daara buy nekk parent d'élève wax fi sànq wax ju wér mooy xale yi ñun ñu leen yor di leen jàngal hmm? ñiy taxawaalo ni ñu gëmee liñ nekkee ñun ñii noonu lañ gëmee liñ nekk bu ci des démb nag dafa am lu xew mooy dama toog fii ci daara ji fan yii yëpp dañu waxoon ne ñu ngi jàpp xale yi am na ñu waxoon loolu bu yàgg ñu koy dégg ñun ca ginnaaw teewoon nañ fi xale yi lu yàgg di leen dundal ak ay bon volonté yu ciy jàpp suñuy ay propre moyen ndax ñun daara lañu gëm moom lañu am dégg nga de ñi ñuy jàpp nag ak di sonal xale yi ak di sonal parents d'élèves yi ñooñu dañ ñu noonoo waaye ay sénégalais lañ comme ñun. te ñaaw na trop ñaaw na trop dem bii fi xewee nag man dama déparé fii dem xale yi ñëw ne ma am na ay xale yu ñu jàpp ma ne lañ fu ñu leen jàppee ñu wax ko bi ma ñëwee gis oto bi di xool responsable bi kan moo jàpp xale yi dégg de. bi ma ñëwee commencé di négocier xale yu mag yi ñëw fa bi ñu yegsee ñoom it xam nga nit boo jàppee njabootam bu yegsee foog mu am na mu réactionné ndax doom dafa jege xol alal dafa jege xol. bi loolu amee biñ ñëwee ma commencé gis waa ji expliqué ak moom am ñu jógee fële ne yéen bu ngeen fi jógewul mën ngeen indil seen bopp problème ñu ne problème bi nan lay demee ci la oustaz Taïd egsi ñu nekk ci loolu ba mu mujj jàppante gars yi bi yëf xewee nag man mi di wax ak yéen man samay xale jàpp nañ leen ñetti xale ak yeneen xale yi ñuy jàpp yëpp leen ci kaar bi dugg naa ba ci biir gis leen. non non non waaw xale yi indi nañ leen sax. xale yi nekk fii ñoom nañ leen waaye bi loolu xewee man sama bopp bi yëf yi amee ba jàppante bi am gars yi dañ ma dóor mbéj ba pare jàpp ma dugal ma ci kaar bi fi ñu yeboon xale yi dégg nga de ndaw si dugg di ma laaj lan moo xew ma expliqué ko mu ne ma yow dañ lay monote sax ma ne ko yow doo ma monote parce que man defuma dara moo benn agent bu ñëw dañ ma mujjee monote génne ma parce que daf na ma foog ñu monote la génne la nit ñi gis la sa mbokk yi gis la xam nga jëf dara gënu koo ñaaw te pourtant ñoom dañ aaye ne nañ buñ jéng nit ñi mais ñoom manot du du jéng ah man lan laa def buñ muy jéng lan. dañ moom monote tey man ma yóbbu ma ci police bi déposé ma fa muy jëf ju ñaaw jëf ju bon wallaay te yàlla gis na ko alxuraan gis na ko ñooñu alxuraan nañ ko. mais comme ñoom bi ñu ñëwee. Mhm. ñoom jiitalu ñu waxtaan. jiitalu jotuñoo négocier ak ñun sax wala ñuy waxtaan. ñoom man maa ñëwoon di leen expliquer di wax waaye ñoom jotuñoo négocier ak ñun. force daal lañ ñuy jaay bi ci desit ñoom comme dañoo siwilu solu ñu ay tenue policier wanuñu ñu ñu carte wanuñu nañu lii lañ xam nañ ne non non non déedéet ñoom xam nañ ne ñooy jàpp xale yi rek takk nañ benn batsi daal boo xam ne ñu ngi ci bind police te loolu sax ñu yéex nañ ko xam waaye daal lu mën a xew mooy jëf nañ jëf ju ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw parce que man bi ñu may def loolu ñoom dañ bëggoon man ñu humilier ma rek mhm. parce que ñaawlu affaire bi wala parce que nit bu fekkee ne da ko jàpp man man leen man ngeen ma yóbbu ma ci ci police bi aajul ngeen may mënoote parce que daw man du ma daw du ma dem fenn bii yëf yi xewee nag ba taa ñëw ci kër gi man dañ ma téye ne ma bu ñëwul yow duñ la bàyyi loolu war a man déposé ma yóbbu ma ci police ma ak beneen booy waaw mu jëf ci doywaar di ko ñaawlu nag fu ñaawlu yem di ko réclamer àdduna bi yëpp parce que ñun ay citoyen lañ ci dëkk bi lañ dëkk te ma wax leen dara tey ngeen dégg ko tey président Macky Sall mi fi toog bi muy gagné fii laa déparé dem ba Saloum votel ko bi may dem di voté yi sama junni moo réer boo mari si parce que wax day leer waaye méttiwu ma yoon wi jaral na ma ko keroog ba ma déggee ñu ne gagné na it dafa fekk sama benn taalibe daw ma di ko wër di ko seeti man ma gis oto yi pii pii ma laaj lu xew ñu ne ma Macky Sall moo jël réew mi wallahi man rek daw naa lu jege un kilomètre barki alxuraan ngir yaakaar ne suñ bër yi doon ak problème bi ñu am dana ko réglé waaye tey la daara gën a am problème tey lañ gën a jooy tey lañ gën a am problème amuñu wéeruwaay waaye nag li ñu leen wax sànq loolu mooy jàll parents d'élèves yeeg ñun ñii ñëpp. def nañ bolok def nañ bolok ak sëñ daara yeeg li ñuy gëm gëm nañ ko ba pare mënuñ si jëli xanaa ñu ray ñun ñëpp bañ jeex. am naa fi samay doom yu fiy jànge am naa fi yu fi jàngee ba génn fi am naa yu fi nekkat fi may wax yow nii samay doom ak samay doom yi mag. waaw mbir mi ba ma ko déggee day comme ni ñu baax ñépp niñ ci amee méttitu xol ak naqar noonu laa ko amee euh, yàlla dogal ba ma ko déggee daar daar mënuma daal di ñëw muy démb waaye première heure quatre heures de matin laa laa jógee Kaolack ñu ñëw fii ah ñëw gi it masawu sëñ daara bi nga xam ne lii ci kawam la dal muy oustaz Taha Niang ah, ndax li dal man bokk naa ci ñu ko teg. ndax sama maa ko jox sama njaboot te li ma war ci moom mënuma ko bañuma ko mais mënuma keneen noonu keneen noonu bi ma ko déggee daal nii laa réagiré daal di ñëw ci daar ji ànd ak moom ci méthode bi accompagner ko wan ko ne ko maa ngi sa wet lu lu lu luñ lay def nañ ma ko defaale man tey bu pëlis doon ñëw doon ko jël si tey ji maa moom ñooy ànd du ma fi bàyyi parce que lim nekk man maa ko teg. nii laa réagir. ñu ngi leen di delluwaat di nuyu euh, internet Dak Médina yi fii ci dakaar ak ci bitim réew yëpp mu nekkoon li nga xamante ne moom lañ leen fi indiloon ci li nga xamante ne la moom mooy euh, problème bi doxoon ci diggante euh, sëriñu daara yi bii nga xamante ne la moom mooy sëriñ Taxa Ñang te daaram nekk fii ci Taïba Grand Dakar mu nekkoon jafe-jafe bi nga xamante ne la moom la amoon. ci diggante ak li nga xamante ne la mooy takk der yi mu indil mu doon mbir moo xamante ne la mbir mu doy waar donc euh, ñu nga xamante ne la fii ci Dakar Dak Médina nga xamante ne la ñun lépp li nga xamante ne la dégg nañ ko lépp loo xamante ne la population bi euh, am nañ ko muy ay ay ay ay njaaxare wala lu leeru seen bopp ñun saa su ne si la ñuy dox pour indi leen ci ay leer-leer loolu moo taxoon tey ñu ñëw fii tey euh, am ak waxtaan ki nga xamante ne la moom mooy sëriñ taxaañaan ak ay am di jàmmam pour ñu waxtaan li nga xam wax ñu ci li nga xamante ne la moom mooy mbir mi fi amoon. kon nag ñu ngi leen di dox ñu leen di jox dig daje euh, ci beneen euh, programme ak ci beneen émission ci lépp rek ci indi leen ay leerleer yi nga xamante ne la moom mooy xew fii ci réew mi def ñu leen di wax nag ne leen ne dee leen abone ci Dak Médina. abonné leen ci Dak Médina pour ngeen xam lépp lu xamante ne la mi ngi xew fii ci biir dakaar ak lu ko wér yëpp sëñ bi ñu ngi leen di gërëm ah di leen ñaanal yàlla li nga xam te ne la mooy tiis bi teg seen kaw yàlla jàppale leen ah, ba mu jóge fii